yi <laughs> male da <laughs> ngay seel a fayle <laughs> seen sondeel daa teel a fay seen sondeel daa teel a fay seen sondeel daa teel a fay. maaleykum salaam. joxu jaxite da ngeen teel a fay le seen seen dafa teel a fay merci ma poule et eh, Seck Diallo mais viens je te fais un bisou mais merci c'est mon gâteau tout ça yéen ñu garaaw ngeen ah eh salut ma fille. <laughs> man tey bëri naa ay de <laughs> chèvre Fall. <laughs> mooy sama lettre. dinaa ko liir après à haute voix. lettre ji xam naa xam sama doom ji leer na ma sama doom ji la rek moo mën a moo moo ci bind ay lettre ah yéen seeni sondeel daa fay ni ma ragaleen waaw mak ni daal fekkee na ma poule. fekkee na ma Lamine Koura Gueye hélas fi bëgg a yàgg nag. brioche dorée. ah. donc merci. waa Brioche Dorée ah. merci beaucoup pour gâteau. ah oui Brioche Dorée ñoo fi ne. Ah, seen i gâteau rek ay gâteau yu tooy. Seck Diallo ça va. mais non. mais non. ay yow jaxu jakitee ngi nii. ay nit yu teem pourtant. ala daal baa joxe nga sama peinture dama jot de. 43 <laughs> fort lay sax. dëgg la rek yow. vous êtes grave vous. <laughs>

ànd ak ay faal yi suñu sëriñ di la Mbacke beneen. amiin amiin yéen murid bu leen safa ku leen defal lu dara. déedéet. Hmm. ça va. ku leen defal tu tiens le coup. ku leen defal lu mu ndaw ndaw ndaw leen ko sax. waaye sax li mu am ko sama waay ci loolu ak yi. waaye ci yëpp. amiin amiin amiin ak waa télé bi yëpp. am nañu jóg san nañu waaw. Euh, dundal 111 ans. waaye amiin waay. waaw wala 113. waaw damay tàmbali ay mission yoo xam ne ni bu dee 113 lay yam il faut que ma àggali ko 115. amiin amiin waaw soo baaxee rek moom la. wallaahi. taalibe yi. merci. merci. donc on a des cadeaux aussi. on a beaucoup beaucoup beaucoup de cadeaux. ah da ngeen di yebbi. xanaa da ngeen di yebbi. dañuy yebbi ah, <laughs> léegi bii bosukat la. bon. Pape Dadjil sa kat. Euh, Pape Dadjil. Pape Dadjil kaay wax tur bi naka la. bon ma Dadjil Xadima. ça vient de Khadim Fall. Khadim Fama design. Pape Dadjil Khadim Fama design moo la ko def. Pape Dadjil. Dadjil. ah Khadim Khadim Fama design ça s'appelle. ah ouais c'est beau ça ah Pape Dadjil. bii de moo dàq ba nga fekkoon ca sama tànk dama teggi dama koy changé waaw. ay la benn bi rafet na am na beneen am na beneen par sa <laughs> <laughs> waaw waaw Design c'est ça. attends je t'aide. Ah, waaw. Khadim Fama waaw. waaw xadima seer <laughs> dessiné ngeen ku pata yow sa crayon bi yëpp jeex na ndax kanam gi du ci lu ruwul la de <laughs> eh dafa mel ni sax la ñu dessiné nii de ah c'est beau c'est beau comment vas-tu ouais c'est beau c'est magnifique bon euh, merci je suis très content ça c'est on ouvre waaw attends ma def nii ok waaye ngato yi itam nuru na ma lu neex de. ngato yi doore la Pape Cheikh. ngato yi ñu dëppar nii he eh, ki sama mag la Lamine Samba non bu Lamine moom lii moom dama ko jox Lamine Samba dama koy yóbbu taf ko sama buntu kër <laughs> Villa Lamine Samba waaw eh Lamine Samba allez qui tenir pour Lamine. Euh, nana na teel la na teel la de bàyyi ma yóbbu ko sama kër bàyyi ma yóbbu ko rek daf ko ca buntu kër ga Lamine sama mag la yow mi sax dama sa bos. parce que da ngaa sa kër. <laughs> ah ben merci à tous ah. Koulim Dioum. Ah, papa la oh. waaw kii mooy le 16 la ñuy feetu papa yu Ndiogu Afia papa yu Pape Cheikh Diallo président Youssou ah, Ndour ah ben c'est cool ah gâteau yi waaw. bi des doore waaw voilà y a un numéro pour ku si bëgg. Mhm. 43 90 pour ku bëgg genre yi. c'est très beau c'est très dessin là. rafet na de. yow yàlla na kër yàlla na loxo bi wér. yëpp lañ mën a présenté fii moo tax mais am naa yeneen ak yeneen yu yeneen i design yu gën a jamono yoo la waaw yu gën a fees photo bi yu gën a dijjal waaw ok voilà voilà merci Khadim euh, dina ñaanal merci Amir Amir euh, dina ñaanal cent ans cent ans plus cent quinze boo wax cent ordonnance waaw cent ordonnance day bari cent ans zéro ordonnance laa yor <laughs> Pape ak kii tamit euh, dàll yi moom Baye Fall yi ñoo la ko indil waaw Baye Fall yàgg yàgg na ma ak ñoom de waaw ñoom yàgg nga Njóogu sama rakk la ñu xool gis nga kii rek jox la yow Njóogu ku la li li waa Futur Média di wax ku ñu xool ci ku ma xool ci yow mere ma bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xëyee àjjuma ñun ñëpp dañuy jot message bu ñu dëgg la koy waxante suñu dëgg la ñoogu yónnee na la ñoogu yónnee na la donc baax am na yoo xamante ni bu dul dëgg du yàgg te mu ngi yaa ngi bëgg a yàgg ak ñun de yaa yàgg na ma ak moom de waaw léegi may leen na ma wax ñu joxe cadeau bi rek parce que wax xew bi yëpp bii rek bii rek bii rek gâteau yi rek cadeau bi rek sama sama yaay. waaw maa ngi koy nuyu lu bari. yaa ngi koy ja. Mhm. maa ngi koy nuyu lu bëree lu baax ci yow. waaw léegi Pape bi Jonasio Bass. Jonasio Bass moo laajal bés bi. Jonasio Bass waaw. mu ngeen taal teg nga taal ko seen néeg bi. de wees la ngeen koo dugal ci néeg la waaw moom moom sonn na moo defar bii si salle bi ngeen toog. Ah, bi ngeen koy ko ci néeg moom numéro am numéro mi ngi nekk numéro mi ngi nekk 77. 259 38 98 Pape. ñaata ñaata mooy numéro bi. 77 259 38 98. donc moom mooy defar yi. waaw bi rafet na Youssou Ndour bi tamit sax na. waaw OS bi baax na de voilà avec la photo à l'intérieur. waaw OS <laughs> <laughs> <laughs> la. waa OS la. waaw ñuy ñuy remercier waa waa brioche waa cekkee na nekk nii Pape. cekk Diallo cekkee. waaw ñuy remercier waa waa brioche Dorée parce que. parce tamit euh, wax dëgg yàlla nee nañ buñ ko teeloon a préparé sax dina dina ëpp li parce que jaral nga leen lu ëpp loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. donc ñuy euh, remercier bu baax a baax waa Brioche Dorée rawatina ñi nekk Sacré Cœur. Mm-hmm. Euh, Nana. Aïcha sa turandoo. ah kon Nana sama sama rakk ji la bokkal tur. ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire Pape Cheikh kontaan nañu référence ngi ci dëkk bi ñun waa Brioche Dorée bëgg nañ la torop torop torop billaahi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga gudd fan loo ragal lépp loo ragal yàlla bu ko gis jàllo jëri ñu ngi loolu rawatina sunu patron tamit mi ngi kontaan ci yow. waaw ah. ñu koy remercier kontaan nañ tamit ci moom ñun employé franchement. man Brioche Dorée am naa fa ay xarit Jules. Ah. Euh, Jules mu ngi nekk euh, Brioche Dorée bu Almadi. keroog itam tase naa fa ak euh, Oumou Khayri. Mm-hmm. et si ak comment hasard Oumou Khayri Brioche Dorée Almadi la nekk. yaayam tamit tey la anniversaire am. voilà donc Oumou Khayri bu Brioche Dorée Almadi. en plus ñu ngi leen di wax tamit. Mm-hmm. Brioche Dorée Sacré-Cœur instant bi ñu ngi promo ay hamburger benn 1000 francs. fii nii pour tey waaw shawarma yëpp waaw ñu ngi wax waaw. waaw loolu la ñu bëgg na ñëpp ñëw waaw waaw Sacré Cœur donc Diawara moo ngi koy remercier bu baax parce tey naqarlu na ko nag nee na bu ñu teeloon xam bu ñu teeloon xam ma ne ko yoon yemul ci benn mënoon na ko def xaalis rek bu Sénégal mënoon na ko def xam nga lii moo ko lekkee dinaa jabet <laughs> ba bëri mënoon na ko def enveloppe rek moom it Diawara non Souleymane day yegsi Souleymane il faut mu yegsi ah, man ku ma xool ci xaalis di ma mere. xam nga ngat lii. mais Pape bu ñu paree ci loolu nag yaa ñu jaral lii yëpp. parce que tey yëpp xam nañu yeewu leen ku ci nekk warul ñëw. Mm-hmm. mais comme ni ma ko waxee rek léegi ci téléphone bi. Mm-hmm. Euh, sama sama euh, sama sama compagnon de guerre nga. Mm-hmm. yàgg na am na loo xam ne jarul ñu koy wax ci télé tey damay wax au nom tout le groupe ndax xam naa ne euh, waxtu wi dabewul. yow mais mais maag yow donc yàgg na te boobu ba léegi dara ñaawul te yàlla bu dara ñaaw. yàlla la bàyyee yàlla bàyyee moo xam lu tax nga judd jouru xol mm-hmm. donc ñëpp dañ laa def ci seen xol également mm-hmm. Ndiogou Afia kenn du moom mm-hmm. dëgg yàlla suñu sponsor yi également ñu ngi leen di remercier ci turu Pape Cheikh Diallo ñuy remercier Sénégal yëpp parce que téléphone yaa ngi riir ku ci nekk yaa ngi naan maa gën a bëgg Pape Cheikh mais comme ni ma ko waxee également def naa photo boo xam ne ñun ñëpp ci nekk di xaqtaay di reetaan uh-huh. reetaan yooyu yaa ko def ci ñun kon yàlla na sa jàmm <laughs> léegi may leen ma ma wax nag waaw mais <laughs> danaa wax de damay wax de damay wax dañ koy ñaanal. suñu borom defal ko gudd fan. ak wér ak wér la si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Serigne suñu maam Cheikh Mouhamadul Fadel ibnu Cheikh Khadim radiyallahu taala anhu ziyaaraale Njoogu Afia ak ñi mu àndal ñëpp wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na. di wax ne nit ki soo waxee léppam da nga koy catu man xam naa moom xam na yàlla xam na te dafa am loo xamante ni suñu borom bu ko defee yaakaar naa ne warul nekk hasard bu ko jàppee hasard itam xamuloo li xew ndax mbaaxam kenn dootu ko nattable yaram kenn dootu ko nattable waaye itam surtout woyof ak wàccee boppam loolu dafa nekk mbir moo xamante ni képp koo xamante ni doomu aadama na war nga siy jàngee lu bëree bëri koo xamante ni saa yu xëyee dina fexe xol yi féex nit ñi bëgg te boo waxee léeg-léeg ma ne ko waa bàyyi mu ne ma na nit ñi bëgg rek moom bu nit ñi bëggee rek xolam sedd na am na li nga xamante moom moo di mbégte kon mbégte mi ngay def si xolub doomu aadama yi yàlla na ko yàlla fay ba aljana si barke sa sëriñ suñu maam Cheikh Mouhamadul Fadil sa mbaax wër na àdduna sa yiw wër na àdduna sëriñ Galas Kalsum moo may woon yi Mbàkke ibnu ki nga xamante moom moo di sëñ Baara ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal ibnu Cheikhul Khadim radiyallahu taala moom itam nee na ay ñaanam mu ngi ñëw si yow ak njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp radiyallahu taala anhu man nag personnellement saa yu ma jullee jàppal na am nga si yool saa yu ma demee màkk saa yu yàlla <laughs> xam saa yu dooma ci dox jàppal ne am nga si yool wax naa ko waxati ko waxati ko ndax ba mu fay njëkk a sama tànk di aji si yow mii la jaar te ka ko jaar la si yow mënoon na jaar si yow nga ne ko kooku di nit ku baax wala nangam ak nangam mu teggi loxoom yow daal dundal rek na yàlla guddal sa fan may la loo wax kiyaa waxal kiyaa dégg xam naa day loo wax kiyaa ñoo doon wàcceel kaamil nañ pare nañ ñaanal la ki yaa mooy woote kon kaamil bi yàlla na ko yàlla nangu ñoom imaam Thierno Mbeng ak ñamu àndal ñëpp jóge sa kër jàngal la ko yàlla ko yàlla nangu ñu fekk at yu bari yow daal ma jox amiin oustaz oustaz le fait que muy jox sourire nit yi si ñut lay commencer mhm. man lu may wax mooy peu importe état d'esprit bi may ñëwee fii su ma egsee daf may reetaan loo daf may sourire loo c'est mon frère c'est mon confident mhm. su may wax di jooy xaar ma arrêté parce que <laughs> on parle d'amour on va appeler Loz mu ñëw mais Loz ñëwal wéyal ñu ma génn ñëwal wéyal ñu ma génn waaw Kumba sax day ñëw tey ci guddi xaaral xaaral xaaral balaa Loz ñëwaat xaaral xaaral. laay laay la laay laay la attends attends waaw Pape su ko daggee waaw après Kumba déjà Kumba dafay dellu soit tey ci guddi sax euh, lii yëpp dañu ko bëgg a wane ci télé bi waaw heure kaana yi. Ah, waaw dañ ma bëgg Pape waaw loo xamante ne tey important la. <laughs> waaw la ma ne. li ko ñu mooy woote nee day.